ok accal sa biir allah dëkk bi nu tuddati booy ah ah anamu mati toogal ni ànd ak ñoom waaw kay mu ngi doon incha allah waaw tey nag ñoo ngi fii uh, ci uh, bu naka booya waaw dëkk bi booya la tudd mi ngi nekk ci ginnaaw ndindi ah ndindi ak Diourbel ñaata kilomètre la waaw vingt cinq kilomètres waaw macha allah léegi xale bu jigéen baa ngi ni moom la ñuy censuré euh, xale yaa ngi noonu loolu la allah waaw nga ni ah? diggante Boy ak Ndindi ñaata kilomètres la vingt vingt cinq kilomètres diggante Boy ak Ndindi wala diggante Ndindi. Ndindi jurbel Diourbel. Ndindi Diourbel. ah moom mooy 25 kilomètres yi. waaw la. allah yi leen ñëwal nii nak, moom mooy xale yi nga xam gis nga lii ñuy liggéey nii ñoom ci lañ judd kii mooy seen yaay ñoom li ñuy liggéey ci jamono bi ñu toll nii ngi jàng nag ngi français ngi mais dañ ko di liggéey liggéey bii parce man maay seen papa wax waaw loolu moo tax suñuy liggéey ni dañuy ànd ak ñoom parce que bu guddi ëllëgee ñoom ñooy song liggéey bi rek waaw ñoom dañuy dindi bagage yi bu baax a baax fi mu nekk nii seen maam bu nangoon tey tey la ñuy censuré affaire yi tàggale ko ak bagage yi waaye xam naa ne moom waaju ko quoi fi mu nekk nii ah soxna si ah, ah pareeguloo de <laughs> pareeguloo <laughs> pareeguloo pour ñu dindi la ko ñu tàggale la ak pangol yi sa sët yi ñoo lay tàggale ak moom ah ah ñu bàyyi ko fi waaw te dañ la ko bàyyil waaw loolu la incha allah waaw mu ngi allah waaw ah, kii nag xam naa ne tuuru cosaan la ah, ah? waaw tuuru cosaan la lool moo tax ah day de xam naa ni bu ngeen xamoon li ci nekk da koy dindi parce que lii day topp ba ci topp ay sët voilà du bàyyi ko ndax xamul tax du kuur yi kese du ndaal yi kese mais jinne moo koy doxal waaw loolu la incha allah man nag docteur laa ci wàllu jinne est-ce mos ngaa gis lii. ah mos sa gis kuy def li ah xalé yu tuti yi sa len gis ñu dindi bagage yi suñ paré dina la won seen liggéey la ko won fi ci portable nga diko gis ay tour yu mag dañ koy dindi ñom ñep ci lañ judd ki moy seen yaay wala loolu la inshallah allah euh, ki suma jank bi mu tuddati njàkk Diouf waaw lañ lay tagal ak sa bagage nak ñak bu fi ñoti de de nga wax ji te mu tak dara ci yaramam de nga parce que galaji ak pangol yi ben rek la dafa mel téléphone fixe ak portable rek c'est la même chose voilà loolu la aywa gis ngeen ko waaw ah, xam ngeen ni lii tey bu fekkoon ni du woon lu ñu xam doo ci ñemee dugal xale yu ndaw yi te lu mu guddi guddi nag dañuy ñibbi ñun ñoo ngi dëkk fële ci ginnaaw Fatick dëkk bi ñu wax Ndios moon dëkk bi ñuy wax Pokot ñun foofu lañ dëkk voilà loolu la incha allah dégg nga wax ji ñaata la jël foofu ah gis nga lii ngay gis ni bon ci jamono ceddo yi temps bi nga xamee diine amagul jamono boobu la jinne yi coloniser woon doomu adama yi waaye nag bi diine ñëwee normalement li nga xam ne mooy li gën da nga war a tàggoo ak moom parce que bokkaale yàlla yàlla subhaanahu wa taala dafa wax ne ku ci dee boo duggee safara doo génn inna haulaa imu tabaruun maa xam fi baati maa kaanu yaamalu nee na lu ñàkk solo la da ngay xool xale yi nga gis ni xoolal xale yi gis nga ko nii bu ñu newoon tey nañ ko dindi du mat cinq minutes ñoom ñoo koy buddi bu ñu paree naa la woon ay tuur yu mag yoo xam ne ñoom dañ koy dindi ñu ci leen juddu waaw man nag fanweeri at ak lu teg loolu lay liggéey dégg wax ji wa ah, loolu inshallah dañ la ko bëgg baaxé ni rek parce que bëss mëna ñëw manam nga bëgg ko lako dindil comme mbir mi def la bett quoi wala loolu inshallah parce que ma ngi gis sa doomu goor bi di insister mais li boko ko sa dina du baax wala loolu inshallah wala non mëno nekk ci guddi nekk ci bëccëg loolu mënta nekk du dëgg su bëccëg ñëwé kay guddi da fi wara joggé wala mm. voilà moy mbir mi inshallah allah waaw lii na ci koko xamul mm. mais ci koko xam du dara mm-hmm. man bo ñëwé sama kër fi mu nekk ni tay ji ñi fa ñëw xam nañ li fa nekk dégg man ci Allah bi la dëkk waaye lii moom xam naa ne guy bi moom cosaan la loolu moom dëgg la mais du cosaan mais sosaan la lu ñu sos la voilà ci depuis peut-être ay maam wala yu mel ne muy toppante ba egg si fii parce que jinne la nag li nga gis ne bu nee du dara ki naan du dara xamul li muy wax mhm. dégg nga wax ji day jàpp ca day day yàq bu baax a baax ci ku ko nangul te mhm. xamoo fooy taxaw voilà mais nag bu fekkoon tey ji euh, dañ ko doon dindi mhm. dafa am lu ñu lay xamal nga xam ko ñu am lu ñuy def ci yow su boobaa dootu am benn problème ñoo ngi ñaan yàlla bis ñëw nga nangu ñu dindi ko du dëgg. Mm-hmm. voilà loolu la incha allah parce que lii moom ku ko xamul mën nga ko ragal. Mm-hmm. mais ku ko xam du dara ko mm-hmm. loolu la incha allah bu ñu paree naa la woon ay tuur yu bëri yoo xam ni xale yi seen bopp ñoom ñoo koy euh, ñoom ñoo koy dindi voilà loolu la incha allah kon ñoo ngi ñaan yàlla buur bi taara ko taala xam naa sa doom bi. da dugg YouTube boo tàppee Daara Kennel Yàlla di nga ma gis nga xool activité bi yëpp macha allah waaw di nga ko gis bu baax a baax loolu la incha allah xaar tuuti moon la.